cheikh abdul ahad nee na mbalaanu sutura ku ko sunu borom sàng lu mu tére di tére di ay tànkam du feeñ cheikh abdul axaat nee na sëriñ tuuba laa doon liggéeyal muy lu wér ba samay moroom raw ma nopp mosu koo dégg te bët mësu cee tege Cheikh Abdoul Ahad nee na maytu luy niiru niiru lu dara te du dara boo sàgganee mu dox sa digg ak luy dara Sëriñ Abdoul Ahad nee na bul bañ ku xeeb wante bul nangu ku la cheikh abdul ahad nee na tuub mooy garab gi nga xam ni suñ ko doon naan waxtu wu ne dara dootuñu dal dafa am ku mësa ñëw ci cheikh abdul axaat ne ko dama gént rey nit cheikh abdulaat ne ko baa gént nga dem kasu mu ni ko déedéet sëriñ bi ne ko danga teel a yeewu soo nelawaatoon tuuti gént kaso ndax rey nit ak dugg kaso ñoo ànd cheikh abdul ahad nee na nañ mel ni ëkk te bañ a mel ni xob ndax xob ngelaw mën na koo dugal si pax te dootu ko fa génnee ëkk nag fu ko ngelaw fekk fa la koy bax Cheikh Abdoul Ahad nee na ñun ay murit lañu yoo xam ni sëriñ Touba lañu yaakaar tey te moom lañu yaakaar ëllëg wóolu gëm ak ragal ak yaakaar sëriñ Touba rek lañu ko def. Cheikh Abdoul Ahad nee na boole lu bon ak lu baax. mi ngi melni nit bu ñuy naw ci bari yere te yere bu mu summi tek ko ci talu yi yag yag si rafle lay mujjé cheikh abdul ahad Nena teranga si am raxasu lay tambalé so amé gan di jox raxasu tuyul ko pan lu loxoy tilim tilim bu feeñ waaye su ndox ma bariwul mu raxasu ndox ma ñuul kukk bu ko waxee ak bu ko waxul teg nga ko kersa Cheikh Abdul Ahad nee na lu waay di wut te wutee ko yar ak teggin dina ko am lu waay am te téye ko yar ak teggin dootu ko ñàkk koo xam ni wut am ko te loo am dootoo ko ñàkk léegi nga bari le sëriñ abdul axaat nee na at yi nga war dund at bu si dem dootul dellu si weer yi nga war a dund weer wu si dem dootul delusi, si bés yi nga war a dund bés bu ci dem dootul delusi, si saa yi nga war a dund saa bu ci dem dootul delusi, si yépp nag bu ci dem te yóbbeelu la lenn si lu baax soo demee doo fa fekk dara cheikh abdul axaat Nena na def ak bàyyi ku ma fa séen du Abdul Ahad man damay jëf rekk baa ma bàyyi dun min